ñoo ngi fii ci Sandaga ci bërëb bi ñuy jaayee fruit di Sandiniéry ay fan yu néew rek des ci màggal Touba foofee fees dell ay camion yu bëri rangaloo def fruit lépp jóge bitim réew foofee nag fruit yi bëri fa lool jaaykat yi ñoom nee nañ ñu ngi siy gis seen bopp. commande yaa ngi dugg bu baax franchement bu ñu waxalee yàlla am nañ commande yi ñu livré am nañ commande yi ñu nekk di def boo xoolee am na commande yoo xam ne tamit yor nañ ko livré guñ ko. waaw gars yi moom ñooy ñëw bu baax de saa yi moom macha allah dëgg yàlla moom ren moom liñ am moom kawe na suñu njort quoi.

jógee ci diwaanu Touba di jënd rek ngir jaayaat yenn ci fruit yi kenn mënu ko waxaale ba noppi frais de transport bi métti ci ñoom lool. bi ñu ñëwee li ñu fi fekk affaire bi dafa augmenté wu bu njëkk ba jeexoon na stock bi fi ñëwaat nag moo seer lool lool lool lool. actuellement nii maa ngi woote Touba dégg naa fa 30 000 dégg naa fa 28 000 ak pomme bi pomme bi ak caat mi ñu ngi ñu ngi ko jaayee 24 000 ndax boo xoolee transport bi génnagul oto bi. da nga koy fay oto bi nga gis ñu sartane après dañu koy fay. njaayum fruit gi mel ni tulleeg màlli ca sandinari conteneur yi chariot yi ak keesu fruit yi yëpp ñuy wàcce jëmale ca cantine ya ku nekk ci say yëngu-yëngu ñii di ouvrier yi nag di wàcce fruit yi tamit ñoo ngi dugal koom bu baax a baax waaye soo ma yowul fii léegi ay fan fruit yi dina ñàkk lool.